jërëjëf mbokku téléspectateurs yi euh, yi ñuy seetaan internautes yi ci la TMS bi ñu ngi en direct fii ci biir cabinet médical bi ci bureau Serigne bi euh, ñii nga gis ñu toog nag dina ngeen ko gis léegi en nimage maanaam dara yëkkatewu leen du dul produit yi nga xam ne nii mu lay Sow mu ngi ko defar di ko baaxee askan wi. mais surtout ñu ràññee ci période li ma koy wax naan ko vous êtes un missionnaire mais vous êtes aussi un visionnaire visionnaire mooy lan mooy t-shirt xam ne ni tey maanaam dañ ko def pour maanaam xale yi. parce que nag léeg-léeg nit ñi dañuy fàtte xale yi te jinne toujours sëriñ bi da ngeen dégg mu di ko wax wala jinne toog fi sax di ko révélé ne ba mu amee juróom-ñaari at wala ba mu amee juróom-ñetti at laa ko dugg kon nag loolu aussi war na tax parents yi tamit ñuy sóoraale xale yi moo tax sëriñ bi defar ay t-shirt yoo xam ne nii catégorie d'âge yëpp daf ko defar cuuraay li dégg ngeen ngëne li ci am ak baax baax yi ci am cuuraay dafay aar dafay ubbi t-shirt tamit ñoom tamit noonu toujours ngeen gis ni jógee fu sori ñëw na t-shirt la soxla parce que t-shirt yi tamit ngëneel yi ci nekk ak baax baax yi ci nekk tamit foo ko natt rek passé na ko. vite fait nag moom kooku moom dafa mel ni asib maanaam asib boo ko sottee ni muy def noonu la vite fait di def maanaam ci jinne ak rab ak lépp loo xam ne dafa mun a faagaagal doomu aadama te vite fait bi sëriñ bi am na maanaam gis-gis. ba dafa defar vite boo xam da nga koy sotteeku ak vite boo xam da nga koy naan parce que ñun góor ñi léeg dañuy dem di jàmbat ay biir yu métti wala sa biir di rëy nga naan dañ may defal ay ganaar fekk am na loo xam ne lekk nga ko moo xam sa kër nga ko lekkee wala nga dem lekk ko ci xew wala foo mu ko lekkee te ëllëg loolu bu yàgg sa biir mun na la faagaagal am na sax ñu baal ma ci ñenn jigéen ñoo xam dañ koy def pour nopp seen borom kër wala nopp ka nga xam moom la ñu bëgganteel pour ëllëg ak si mu topp leen loolu yëpp nag vite fait bi nga xam moom moom sëriñ bi daf ko defar def ko ci ay butéel boo ko naanee macha allah waxuma dara waaye lu mu fekk ci biir bi daf koy dindi ba mu set te bu fa tegoo tamit lépp lu ñëw tamit du la mun a dara kon nag sëriñ bi def na produit yoo xam ne nii moom même boo fi ñëwul sax produit yi bu fekkee ne sàmmonte nga ak moom ak nañ la ko waxee mën na la aar mën na la ubbi moo tax tey ñu ñu ñëw toog Moustapha dama lay jox nga nga nga def benn benn genre tour de table kenn ku ci ne nga laaj ko moom ban produit bugg ak ak waaw waaw benn <laughs> produit leen comme sax bu ñu demee ba fële ñu jël côté bële ngoone moom tamit daan def tour de table ak waaw waaw c'est bon vas-y vas-y jërëjëf euh, doyen ngi lay ziaraat di la jox sa wàccuwaay euh, waaye maa ngi commencé ci la xalif général di ko ziar bu baax a baax di ko jox wàccuwaayam di am mbégte toujours di ànd ak moom sur la TMS TV di ziar aussi suñu jigéen soxna Ngone di ziar assistance bi yëpp di ziar président Alseni Fusila ñu ngi ziar bu baax a baax kon euh, defe naa dañuy commencé fii euh, ñu ngi lay ziar di la dalal ci TMS TV di la bàyyi na nga présenté wu ak nga wax ñu lan mooy sa tànk fii ci kër la xalif général di Alaaji Ceerno Moulay Sow. waaw bàyyi na nga présenté wu. waaw asalaamaaleykum man la Bokar Bokar Sall. Mm-hmm. Euh, di rakki Marème Marème Faye Sall bi nekk France waaw. man sax dëgg yàlla tàmm di wax te mënuma nekk sax di wax loolu moom <laughs> tàmm ko wax dëgg yàlla ndax euh, sama mag bi nekk fee yéeg bu mu am si Thierno romb na man mënuma wax sax ndax ngoone xam na si dara <laughs> barke yàlla bëgg bu mu bëgg Thierno dafa weesu foo da jël ba photo yaayu Thierno la def si profilam waaw ndax bëgg bu mu bëgg Thierno hmm. saa yi ma yeewoo bu ma ko wooyee yëf yi waxi Ceerno rek la may wax mm. suba ba ngoon te jamono yi fu mu nekk dafa sonn mm. sonn na trop bëgg na wàllu moo tax mu yónni ma fii tey ak li ma dajale ak liñ ma dimbalee pour ma ñëw jënd affaire bi vite fait bi mm. pour Ceerno dimbale ko waaw ndax euh, nga nekk àll ñetti at ak juróom ñetti weer ak juróom ñaari fan nga nekk foofu mënoo yónnee benn dërëm sa rakk bi fi ne amul benn liggéey man maa fi nekk di taxale lu mu taxale lu mu métti métti ma yónnee sama yaay ma ne ko lii de marem moo la ko yónnee te fekk du moom waaw chaque jour moo bu tëddee fee du nelaw guddi amul liggéey amul këyit amul dara yaram bi day yëngul sax guddi waaw magee bi fa ne sax moom moom laa gën yërëm ndax moom moom nekk fa moo jàppale sama mag waaw mënuma wax nag bëggoon nañ aussi liggéeyu sëriñ bi. ah kay jéggi na dayoo. waaw dafa mel ni géej rek nga taxaw xool ba fu mu yem doo xam fu mu yem. doo xam fu mu yem doo xam fu mu yem. doo xam fu mu yem waaw dëgg yàlla moom Daaru Laay bu Sénégal la bokk. macha allah muy bokkar comme ni mu ko waxee rek mënul wax ndax démb te ba tey mi ngi naan ma ngoone su ma ñëwee jàppale ma jàppale ma si sëriñ bi ndax man mënuma wax macha allah moom tamit ki nga xam ne ne. moom mooy rakkam nekk foofu Marème fay Sall macha allah mu bëgg sëriñ bi loolu nag chaque jour heure bu seetaanee video yi daf may wow mu nekk nit koo xam ne amul këyit comme ni mu ko waxee nekk France nekk fa ci ay jafe waaye nee na métro bu fay dugg lot oto lu muy dugg ak fu muy dem ñetti turu Thierno la fay duggee di dem di réussir macha allah amul amul këyit amul dara mu nekkoon nag ku bëri ay jafe waaye bu mu duggee daaru laay xaw na tane parce que comme ni ko rakkam waxee macha allah nekk na fa amul kayit ñetti at nga nekk ci dëkk munoo sax yónnee seen waa kër macha allah waaye nag rëccuwul nu mu xamee Thierno du ko bëgg mu nekk taalibe bu dëggu macha allah bañ ne ko ba profilam sax day jël ki nga xam ne mooy photo ajaratu Mariama Camara la ciy def macha allah nee na ma fépp fu may dem métro bu may dugg fu may mun a dem ñetti Thierno yi laay def may dem ba ñëw te duma paas nee na mi ngi sant na bu baax di ko gërëm loolu moo tax tey mu daal di jël boole la mu am ak ay mbokkam am mu jublu ci yaramam pour faju jënd li nga xam ne moom mooy vite fait bi te sëriñ bi defal ko ñaan yu baax te macha allah te magay mi mu fa nekkal mooy papa yi konaate moo koy jàppale bu baax di ko taxawu. moo tax nag tey mu daal di ñëw pour jënd li nga xam ne ne moom mooy vite sëriñ bi pour defal ci li nga xam ne ne moom mooy yaramam waaye nag sant na sëriñ bi sant na ki nga xam ne moom mooy président bi Ousmane Sam Samaro Si ndax jafe-jafe yi bëri na waaye ñetti cerno yi mi ngi koy jàppale ci lu bëri ci wàllum fépp fu muy dem. wàllum këyit wàllum voyager fépp fu mu taxaw pour bëgg a dem du paas de ndax nee du yor sax lu mu paase ñett tuuru Thierno yi moo ko yóbbu fu ne kon nag mi ngi sant Thierno di ko gërëm bu baax a baax looloo waral tey mu daal di yónni ki nga xam ne mooy rakkam ne kat kon ko vite fait bi moom macha allah gis na liñ ciy wax ci jinne yi te moom it tolof tolof bëri na rab yeeg jinne yi topp nañ ko di ko yàqal lu am liggéey bay am këyit léegi nag day ñëw jàkkaarloo ki nga xam ne mooy sëriñam jënd ci produit bi nga xam ne ne moom mooy vite fait bi yàlla def jàppale ko ci mu am tamit li nga xam ne moom la bëgg ci yaramam ndax mbokku taalibeem li ñuy def yépp di ay teraanga di teral sëriñ bi moom it bëgg na ko waaye nag fekk na jafe yi rek ñoo ko topp macha allah ba tax mu yónni rakkam bi mu nekk nit ku baax nga xam ne moom tamit ci association bi nga xam ne Alseni Sila moo ko jiite ci la bokk mu nekk nit ku baax ku dëggu ku bëgg sëriñ bi kon nag macha allah Marème Faye saala kon moo yónnee di jënd li nga xam ne ne moom mooy vite fait bi. jërëjëf euh, soxna Ngoné defe naa ni kàddu yi nga wax léegi nekk na kàddu yu am solo mais nekk na kàddu yu daw yaram euh, bu ñu jàngatee sa wax euh, liñ ci mën a jàng mooy yàlla suñu borom rek moo mën a maye defe naa ni li mu may jëmm ji macha allah mbégte la kontaante la ci àdduna yëpp. muy jàppale Sénégal di jàppale waa àdduna kon yàlla suñu borom moo xam lu tax mu wàcce ko ci kaw suuf kon defe naa ne sëriñ bi kenn amul fayam yàlla suñu borom moo am fayam kon ba léegi yéen ñu seetaan su la TMS bi euh, di tele bi nga xam ne moo feeñal lépp lu nëbbu làmbook njëriñ ak euh, le khalife général di Alaaji Thierno Moule Sow le roi médecine traditionnelle du monde the king of the all the king ak suñu doyen Abdou Aziz Diagne ngeen dégg ci commentaire yu am solo yi nga xam ni soxna Ngone Dia wax na ko di suñu jigéen nekk ci kër gi mais également assistance bi aussi ñi ngi fi daañu leen jël léegi euh, Alseyni Sila aussi mi ngi fi alors dégg ngeen léegi vraiment euh, témoignage bi nga xam ne sëñ bi wax na ko léegi mu nekk témoignage yu am solo kon defe naa ni balaa ñoo yeggali ci ñeneen ñi doyen Aziz Diagne eh, est-ce que duñu Euh, def remise bi ba pare après daal di continuer ci ñeneen ñi wala ñu continuer ba pare bu ñu paree def remise bi le temps yow sëriñ bi waaw ah, ah, ah, waaw waaw parce que sëriñ bi moo war a def remise ba pare sëriñ bi aussi moom moo war a tëj donc euh, defe naa ni loolu dafa nekk loo xam ne lu am solo la wala dañuy delloo kàddu gi Abdou Aziz euh, sëriñ bi parce que ci ndigalem la ñuy wooyee kon sëriñ bi ñu ngi lay ziaraat di la jox sa wàccuwaay di la delloo kàddu macha allahu alhamdulilahi rabbil alamin auzu billahi mina shaytaan rajim wala xawla wala quwata illa billah al azim gannaaw ba ñu sante yàlla ñu ngi julli ci yonente bi sallala sallallahu alayhi wa sallam mbokku julliti mbokku taalibe ñoo ngi kontaan bu baax macha allah di bég lool ndeysaan suñu xarit yaa leen gën Moustapha Mbaye ndeysaan am na lu ñu gis ci internet bi ndeysaan dafa juum rek ñoo ngi koy jéggalul ñëpp nag ndeysaan sànq laa gis yu bari sax moom it tuub jéggalu na ñoo ngi koy jéggalu yonente bi amul photo amul nataal yonente bi ku la am na photo rek nax na la ndax yonente bi <laughs> jamono yu mu fi nekkee sax ay photo caméra amuloon kenn amul photo amul caméra dafa juum rek xam nga li nga gën a bëgg rek macha allah loolu lañ naxee ci ngay juum ñoo ngi koy jéggalu sénégalais yëpp vraiment macha allah di ko jéggalul ñëpp nag macha allah noonu laa gis nañ sax Iran Ndaw moom jéggalu na ko li nga gën a bëgg rek lañ lay jéggalul moom ko ñoo ngi koy jéggalu Moustapha Mbaye suñu xarit la ndeysaan dafa xamul rek loolu la yonente bi kenn munu ko photo kenn mënul photo yonente bi yonente bi amul photo sax kooku keneen la macha allah kooku moom macha allah mooy gën di mbindeef xam ngeen ne kooku moom mooy sama lépp macha allah waaw kon nag di sant rek di julli ci yonente bi salaa salaam macha allah di kontaan bu baax a baax di nuyu aussi rakku Marème fay sàll bi vraiment di nuyu équipe bi ñu fi toog ñëpp macha allah di sant yàlla bu baax di jullu ci yonente bi di nuyu Aliou ngi fi këleel macha allah soxna yi soxna euh, soxna Ngone Dia doyen Aziz Moustapha Alseni euh, caméraman bi Youssouf ñëpp macha allah euh, moom macha allah nu wax soxna Marème fay sàll moo ngi France taalibe la vraiment nekkoon fa demoon fa nag macha allah nekk sénégalais. nekk euh, liggéeykat bu mag ak Magaye konaate daje fa ak kenn sénégalais yi nga xamante ne dañ lay liggéeyloo di la espalaté duñ la fay ak yooyu kurtu la dem na ba ñu wax ma ci affaire yi sax ma ma jàppale leen ñu xeex ba gañe procès bi sax dañ ko ñoom ñoo ko gañe parce que kooku dafa leen doon espalaté di leen di leen liggéeyloo daawu leen fay di leen teg ay kurtu carte dem na ba euh, ñu dem si justice ñu woo ma wax ma ko ma defal leen ñaan ba ñoom ñoo gañee procès bi femme bi normalement war na leen fay def leen fay leen démarché leen ah macha allah man maa man maa leen ñaanal ci baatin rek fii laa toog Magaye konaate woo ma ñoom Marème Faye Sall ñu ma Ousmane wax ma ma ne leen dinaa ci ñaan mais ñoo gañ a femme boobu bañ ko yóbbee ci yoon man maa tax fii laa toog def ñaan ñu gën a boobu actuellement ñoo ngi topp loolu Magaye sax fan yee macha allah ci la am ay këyitam ak yooyu Magaye Konaté euh, defe naa ne moom kii euh, soxna Marème Faye Sall moom ci yoon bi macha allah moom tamit gis ngeen ko vraiment Euh, ajaratu Mariama Kamara def profil am sax macha allah ndax fi ma ko ni ma teg aja fi ma teg ajaratu Mariama Kamara li ma ko xormaal fonk ko mu teg macha allah moo waral gis nga taalibe yi sax dañu koy def ay profil macha allah. moo tax sànq ba ma gis euh, démb ajaratu a Kamara dafa def beneen euh, muhaddam profil ma woo ko ma ne ko muhaddam boobu dindi ko parce que <laughs> macha allah man li ma def kooku defu ko man fi ma egg ci baatin ak xam-xam. waroo def kenn profil ku dul la xalif général day jinne ki nga xamante ne yàgg na yàgg na jàpp ay jinne sa kanam ñu ñëw di la raamal di la tuubal mm. defe naa ne barki dem ba Njaay la roi xaaxaa ñëw na ba sujootal ajaratu Mariama Kamara ma ne ko nag waroo def benn ay muhaddam ak courte carte te sa doom ne fi nga xamante ne lu mu fi def macha allah bëri na kenn defu ko fi mm. waaw ma ne ko dindi ko parce que loolu du yoon waroo profil kenn te sa doom doon doon doon macha allah sànq loolu laa ko wax waaw kay ma ne ko taalibe yi ñoo ngi may ñoo ngi lay profil di ma profil kon waroo profil keneen parce que <laughs> ki nga xamante ne sax doom moo ko ëpp xam-xam sax waroo ko boo ko profilé beneen affaire la kon nag macha allah di sant yàlla di julli ci yonente bi di gërëm yàlla bu baax a baax vite fait baa ngi nii pare na pour moom Marème Faye Sall moo ko soxla vite fait bi nag 500000 lay jar macha allah def nañ ko ak yéene. moo ngi nii lii nag dina ko dimbali lu mu fekk ci yaram bi da koy dindi te moom dafa am jinne am rab ndax benn jour woo nañ ma mu daanu waaw dafa am rab dafa am ay yooyu daf koy yàqal parce que mun nga am jinne am rab dem biir France di liggéey ndeysaan doo am dara loo am mu yàq ko dafa am rab daf koy yàqal macha allah mais bu ko yàlla dimbalee mu am vite fait bi nii buntu yëpp dina ubbeeku dina changé dina mën jàppale famille am gis nga rakkam baa ngi fii mais day liggéey di jox yaayam di jox seen famille moom moo ko yónnee moom it kenn du moom gàcce nga laa am na ñu nekk bitim réew dañu sonn foofu dañu lott dañu jaaxle parce que yi leen topp ay rab ay dëmm ay jinne ay liggéey da fay nekk sa yëpp day dëgër ki nekk dakaar sax da lay ëpp maanaam da lay gën a ëpp situation am na tamit ñu fa nekk baaxle am na ñu fa nekk aussi seen mbir di dox waaye képp ki nga xamante dugg na ci association bi rek yàlla dina la dimbali may buntu ba ñu duggee ci association bi ci lañ gagné seen procès boobu noonu nga xamante ne tey femme boobu daf leen yoroon foofu ay restauration lañu euh, di leen liggéeyloo macha allah di leen espalaate te du leen fay. waaye ba ñu ma ko waxee ñu dem tribunal ma def ñaan ñoom ñoo mujj gagné procès boobu nest pa ba def nañ ko journal France def nañ ko journal ba Ousmane yónnee ma journal yi ñoom it yónnee ma. te fii laa toog def ñaan ñu gagné procès boobu noonu ci biir France kon xam ngeen ne baatin man sama baatin foo ko natt weesu na foofu macha allah tey nag moom mooy jënd si cuuraay bi noonu kon ñoo ngi la koy ñaanal jàmm ak xéewal moom ak Magaye Konaté ak taalibe yëpp ñi nga xamante ne ñoo nekk association daarullahi bu international gis ngeen lii 500000 lay jar macha allah euh, xam nga gisoo benn sëriñ buy ñemee jaay garab. cinquante mille wala deux cent mille kenn du ñëw fii nag nit ñi dañ koy jënd si parce que njëriñ moo ci ne macha allah lii cinq cent mille lay jar su tojee su tojee un franc du ko jaay comme daaru amet yeeg yooyu ñoo waral may wone di nit ñi di xam waaye man daaw ma wone xaalis yooyu mais comme genre yooyu toog di yàq sa der te gis nga macha allah ñi mu doon àndal ñemewuñu sax jaay garabu dix mille asantuma cinq cent mil gis ngeen lii téeméeri junni lay jar génneel. bi ñuy bi ñuy naan tamit am na. boobu tamit 500000 lay jar parce que yi produit bii nii boo ko jëndewul milliard jar na ko ndax ni mu lay dimbali moo tax ndax 500000 bi ma jox nii mun naa ko def sama poche léegi ma maye ko mu jeex mais vite fait bii nii da koy dimbali. da koy jàppale am wërsëg liggéey bi at yaram dëmm yeeg rab yeeg daw kon moom moo gañe du man maa gañe quoi waaw kay moo ngi mel ni terrain xam nga terrain. ki ki maanaam ki ki jënd moo gañe ki ñu jaay ma ma moo euh, moo gañe ki jaay ki jënd moo gañe ki jaay n'est-ce pas yi moo waral ñu def yi yëpp ana Ahmed waroon na gis loolu mu ngi ci biti Ahmed mu ngi dégg de mu ngi dégg de <laughs> maa bëggoon mu ñoo gis li te ngi tamit di la xamal ni sa sa jarbaat nag yaa ko ñaanal bii daal di koy jox bi Khady Gueye macha allah. def na examen ba pare yàlla dimbali na ko am na. am na BFEM tamit mu kontaan trop. nee na gisul benn yoon lu ko jaaxal. waaw waaw te dina fi ñëw tamit def témoignage ñaanal la bu baax a baax yaa ko yaa ko jox bi waaw ah, waaw mi nag ngoone danaa ci wax lu bari. Khady vraiment ñoo ko ñaanal. même suma goro suma suma suma suma doom suma suma rakku jabar. Mm-hmm. Euh, Moussa ñoo ngi koy félicité moom it defis la dagg yaayam macha allah soxna ummi mu ne ma ma ñaanalal ma sama doom bi vraiment day def besam ma ne ko incha allah dana avancé dana am tey suba loolu lañ xëyee woo ma kon maa ngi leen di félicité waa waa waa kii euh, sébi yëpp Moussa ñoo ngi lay félicité di félicité sa papa jaa di félicité sa yaay ak ah, ñëpp moom it moom it moom it dama ko ñaanal rek ma ne ko incha allah dana am yàlla def na defis la dagg ak ñeneen ak ñeneen dèjà ngóone tamit gis nga lu mu baax waaw waaw man ñi ma ñaanal yëpp defis la ñuy dagg <laughs> waaw yaa waaw ay big lañ ma indiloon fii defis hmm. waaw damay wax ay seen daf ma wax ma ne leen incha allah ñoom ñëpp dañuy am xam nga loolu mooy xam-xam man sama xam-xam léegi dépassé na ma toog mu bind wala ma nangam léegi dama toll damay wax rek yàlla def ko waaw sama xam-xam foofu la toll waaw lu yàlla nag mooy maye sama xam-xam toll na foofu kii barki Dembo Njaay ay big la indi fii doomam bi ma ëpp ëf si sama jabar rakkam yaayam mu ne ma cerno ñaanal ko ma daal di koy ñaanal ba mu demee ba affaire yi commencé koñ ba foofu ñaan ko utal big nga dem fii mën a leen déedéet cerno ñaanal na ko rek dafa dagg defis bi la dagg keneen ak keneen ak noonu yàlla mooy maye mm-hmm. nit ki mun nga bokk ak moom ndey ak baay mm-hmm. yàlla may ko lu mu la mayul mun nga jur nit ki yàlla may ko lu mu la mayul mm, ah. kon dañuy nangu gis ngeen lii xam nga bàyyi woo leen woon may jaay ay vite fait lii cinq cent mille la kenn moo ko jënd ki nekk France mm-hmm. te temps yi ma nekkee si euh, unité 19 ay trois 300000 laa daan fayee ko ay 200000 waaw léegi fii cinq 500000 du ma fajee fii 500000 fi 1 million jëm kaw te ñi ñaa ngi ñëw bu baax waaw waaw gis ngeen waaw waaw macha allah loolu sant suñu borom la rek julli ci yonente bi xam nga lu yàgg dëgg la amete ngi nii tey toog gis nga lu ne la ma daan waxal waaye macha allah waaw waaw non dañuy waxtaan rek c'est normal dañu xam nga dafa baax ñu xam tame quoi loolu la waaye euh, pare naa ci pare naa ci waaye pour mu gis tame sëriñ bi jaay na vite fait cinq cent mille ci kanamam te sëriñ bi si ka euh, unité 19 daawul ko sax trois cent mille yooyu la daan ko ay trois cent mille deux cent mille mais léegi ay millions laay fayeeku te ñi ñaa ngi ñëw macha allah ba ma ba ma calculer cent million laa génnee ci diggante koor gi ak tabax bi ba ma xoolee calcul xam nga kii soixante-dix millions laa génne woon mais bu ma calculer li ma def financé ci xaalis loolu laa génnee te tam xarit baa ngi ñëw damay wàccee ay nag aussi partagé ko joxe ko kon defe naa ne kooku sonnul kooku moo ngi sant yàlla li ma am nag maa ngi koy bokk ak nit ñi maa ngi encaissé nag di di dimbali nit ñi aussi euh, defe naa ne ba ngeen ba ngeen may xam di inte 19 bëri woon ay emploi fu mu nekk nii tey tey sax am na keneen ku ma jëlaat mu nekk euh, vingt six tey yokk naa beneen sécurité mu nekk vingt six emploi yi nga xamante ne maa leen di fay fii barki Jémboo Njaay quatre millions cinq cent laa génne fay ñëpp n'est-ce kon nag macha allah avancement bi moo ngi am waaw kon. moo tax ku lay ñaanal daf lay ñaanal gudd fan ak. waaw waaw loolu la kese ku lay ñaanal moom Thierno ku yor alalam war ko def feneen ñu ko def si jaamu yàlla yi man moom Thierno. aw ma lu mu ko wax parce que xam nga am na ñu yor seen alal di ko def si leneen. waaw moom lu mu yor si jaamu yàlla yi. comprendre nga maag Thierno maag moom Thierno yéen sax li ngeen ko xamal bariwul kii yàlla rek moo koy fay. xolam billaahi wallaahi amul ku ko gën xol. parce que nit même xol ba mu nekkee 19. day toog nit day ñoo toog si biti yor ordonnance am. mu ñëw dugg Thierno ah Thierno kii de daam mu ne ma xajal lañ ko mu ñëw. bu amee safar safar yi booy di def dama ñëw ne ko ah cero gars yi de war nañ def safar mu génne enveloppe jox ma ne ma demal ma ne ko ah Thierno fi am na dëj mu génne cinquante mille ak ceeb ak dëwlin ne mu yóbbul waa 19 xeex nañ ko man 19 laa dëkk man 19 laa dëkk ñu ko doon xeex ñu bari bu ah, boo mu joxee suukar koor koor gi fii jox na ma cinquante 57 saaku ceeb dëwlin ah ak meew dara manqué wul te noonu yi lañ ko jox. waaw ñu ko doon xeex. ñu ko doon xeex lañ jël jox ko. te ñoo xam ne ñu bari ñooñ di wax dañoo xamul Thierno luy leer lay liggéey xam ko liggéey lu lëndam doo filmer moom lu leer naa ngi man liggéey naa un an et lu ko manqué un wala mu ëpp mhm. musu ànd naa Thierno fu nekk musuma gis mu def lu bon mhm. lu dul jàppale jaamu yàlla am na këram ba nekkee 19 mhm. nit day ñëw feebar bu gisee Thierno da ngay gis lu nekk si moom day yolleeku dem. dañuy ñibbi lu benn du ñaar man sax war naa ko lool. bu nangu nit ñi gis la. gis la euh, parce que seen jinne day génn dem. bu nangu ñi gis la te fayuñu la. fayuñu la sax daf ma daan tereloo. waaw mu ne ma sëriñ bi non. dafa yomb parce que am na ay murtani yoo xam ne murtani lañ mu ne ma bul nangu bi ñoo gis Thierno rek jinne wër jinne bi dem rek ñu rek ñu yollee dem mu dem bas karam ma tere ma ne Thierno parce que am na ñoo xam ne dëgg seen jinne day dem waaw ñu yollee ko ñibbi waaw bul nangu benn du ñaar mhm. même ah. garab yi garab yi sax dafa ne woon garab yi pour mu jafe bañ a génn. Mhm. parce que garab bu la xasee boo ànd ak jinne mhm. boo si laalee tuuti rek jinne bi dem na. dëgg la nga wér ñibbi. te doo fay dara du benn du ñaar. waaw moo tax kii Thierno. dëgg la nit amul fayam. Mhm. ñii dañoo nelaw. am la ñii dañoo maa xam nañ ne Thierno mii. amul morom. dëgg la amul morom de. parce que lu muy liggéey lu leer nanj la. dëgg la te seen kanam la aussi seen kanam liggéey du làqatu. liggéey man moom xam nga man moom mooy sama lépp hmm. man ma xaw ma lu ma ragal hmm. parce que lu leer naa ñu laa gis muy liggéey dëgg la xam la hmm. man a Thierno lu ma amoon 19 lu raw loolu am fii nii ay milliards la am ay milliards lay liggéey fii ay millions di ko ñaanal gudd fan ak wér loolu kese kuy ñaanal Thierno loolu rek nga koy ñaanal man su may wax ak moom sama xol day fees. la parce que Thierno xam laa feebar naa. Mhm. feebar naa dëkk naa ak nit. waaw moom dafa jël téléphone woo ma. Mhm. xam loolu xam laa. yëg-yëg ba mu waxee daa mel ni lu newoon si man lépp. hôpital laa nekk. Mhm. lu new si man daa mel ni lépp a dee. billaay wallaay ba nii santaratuma dara. santaratuma jaar di ko ñaanal gudd fan ak wér yéen yéen ñëpp di leen remercier wax ngeen jàpp Thierno. ku gore la. te nit la. te xam na ak nit Thierno ñun fii lañ doon liggéey ñun ñëpp xam la mu ñuy fay suñu salaire ba pare chaque jour mu ñuy jox dépasse ne la daf may woo saa si penne ma Aliou mbaa amoo problème xaalis ma ne ko Thierno yow kuy nekk yow nan lay amee problème xaalis ah di lekk lekk yi baax loo bëgg mu defal la ko sama sama néeg écran plat bu fa nekk Thierno moo ko jënd ba léegi moom laay seetaan am na moo tax mun ma wax si moom loo xam ne parce que su ma waxee lenn rek am na lu des. xam la gis nga même 19 jàq ji jàq ji nekk fa. Mm. sóoróor bi. ciment mm. dem na fa ak tonne. Mm. ak en en fer. loolu yëpp def na ko fa. amul lu mu def lu waa 19. waa ñoo ko doon xeex. waa xoolal fii waa waa Cambre ni ñu ko jàppee. waaw waa Cambre xool ni ko jàppee. ah xoolal jàmm bu mu am fii. Mm-hmm. ah. même borom boutique bu nekk. billaahi gis nga boroom boutique bu koñ ba foofu noonu. ba mu fi jógee ba mu fi jógee léegi. boutique doxatul. billaahi <laughs> mu nekkee foofu. ah. ii non ñi ah, hmm? wallaahi ba sama dëkk. amet bu Thierno Moulay Sow. barke alxuraan nit yàgg na ma woo ne ma amet bu Thierno Moulay Sow xam nga rek. sama gaay la quoi dama ko bëgg man. dañ ci dellu si waat léegi ci kanam macha allah dañ ci dellu si kon ba léegi yéen a ñu suivre sur la TMS bi kon Thierno Moule Sow euh, dañ koy jàppee comme. yonente yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yonente bi bi muy di taxawal diine non bi moom kenn la sax Moustapha maanaam maanaam maanaam maanaam ci ay jaamu yonente bi ci ci waaw ñun yonente bi moom jegewuñu ko macha allah ci macha ci ci ci bi waaw waaw maanaam maanaam damay roy ci bi ci tànk yonente bi lay que nii yonente bi bi muy ñëw di taxawal diine l'islam waaw dañ ko ne du fi amee waaye tey defe naa ni lislaam mooy dox. Mhm. kon Thierno Moule Sow. lislaam lay dox de. yaa ne Thierno Moule Sow ma na ak Thierno Moule Sow du benn. kon dama ne mbele mbele coow la. mbele mbele. coow la bu pënd bi wuree. bu nekk xam nga ki la mën. te ñu te léegi la gën a gis naa parce que ku jël plus que 40 quelques personnes. waaw 40 gis naa li mm. xam ne lii mm. caaxaan. caaxaan yorul li moo tax da ngay dégg ñu ne ñu bari génne nañ saako yi man du ma wax sax ñu bëri génne ñu bëri ma ne ñu ne ma Thierno dafa ma ne ko ma ne ko da ngeen dof mm-hmm. c'est que Thierno du ma ne ko da ngeen dof du wanewu li yor amul sëriñ bu ko yor fii mm-hmm. man dama li muy liggéey mm-hmm. moom rek moo koy liggéey sëriñ yi dañoo làqatu waaw moom dafa dafa day jëf nit ñu di gis day jëf day jëf nit ñi di gis am na yoo xam ne ñoo xam ne sëriñ yoo xam ne wax kese da ngay ñëw ñëwee la defal nii defal nii nii nii jëlal waa moom daf lay faj ci saa si jooni jooni jooni fait mm-hmm. garab bi mm-hmm. li ma wax moom sénégalais yi mm-hmm. monde entier ku si mën ku si mag mën mag ak ndaw na ko jël kaan garab bi am na solo trop jooni jooni vite fait ah man de bu may dem dinaa si yóbbaale xaw ma nu may def de Thierno nu ma def wax dinaa si yóbbaale moom parce que xam naa ah, xam naa njëriñam waaw moom daf ma ko daan tere ma génnee ko ku ma ko parce que xam kun ko wis jinne bi dem te doo ñaata nit la faj 19 eh? te fay ñu ma dara ko faj wallaay niñ ko fay day nekk ba fajar mhm. billaa wala nekk ba fajar du ma lekk si ñoom du lekk si moo tax ñu naan man man Mbass dama ne Thierno est que moom am du ma lekk Thierno du lekk du def dara te du nelaw sax rek ci jinne yi te duñ ma fay dara duñ ko dem Mbass ma mer léegi nag yeewu ma ne Thierno yow nit da nga leen di faj ba duñ la fay loolu du yoon wallaay am la c'est vrai li 30 personnes dañ leen faj gratuit gratuit benn nit ñaar nit ñoo lay fay duñ la fay sax te duñ la fay 200 000 150 000 ñenn ñi sax dañu la dinaa ñëw après doo leen gis am koo xam ne benn femme bu jigéen jógee Mauritanie ñëw. Mhm. femme bi dafa egg si mu fanaan fa ñaari fan Thierno ñëwul. Mhm. waaw jour bi Thierno ñëw Thierno dafa ñëw rek mu tëb rek nga gis lu newoon si moom. Mhm. Thierno di wis bee kenn ku jigéen kenn ku jigéen garab rek yaay ji xëcc ko yaay mu ngi ko xëccee rek garab bi laal yaram bi. mu mel ni luy làq. ku jigéen ki foo jinne bi jour boobu la génn si moom. si si ma xëy di ko xool si kaw fekk moom ñibbi na Mauritanie. dëgg la. <laughs> ma dem bas kanam ku ñëw da ngay fexe gis Thierno rek. Ah. génn bi di génn si yow rek dem sa yoon. dëgg la. mën a Thierno nañ affaire liggéey bi nañ xool ni ñu ko organiser parce que gars yi ñu bari liggéey bu yomb lañ. dañuy profité am na yoon bëgg ñëw rek pour gis Thierno kese. bu ñu ko gisee rek seen aadi faj yu ñu leen. ñu dem waaw dëgg la loolu moom dëgg la. kii am na lu ko yàlla may de lu ko may ko kenn de. Mm. nit ñi dañ ko xamul. Mm. après lañ koy xam. Mm. du léegi de moo tax ku koy ñaanal da nga koy Thierno yàlla yàlla la yàlla may gudd fan wér. parce que bu guddee fan wér. lépp lépp ñu ñëpp nañ si njëriñu. man maa ni xam laa Thierno amul lu ma defarul comprendre nga ak sama sama yaay ak sama papa xoolal jour boobu noonu ba mu joxe suukar suukar koor. Mm. sama yaay la ñu jox. Mm. ba pare jox jox xaalis bu bari ne ko am. Mm. ba pare toog ne paa bi am joxal ma lii paa bi xam nga loolu ku la koy defal. kooku ñaanal ko rek taal bu yàlla taal kenn doomu aadama mënu si dara da ngay sonal sa bopp rek kenn ñii dañuy sonal seen bopp rek ah ñoom kay defe naa ne moo tax ñi ko jéemoon a fay ñëpp génn nañ génn nañ stade bi waxuma sax waxuma sax dem nañ ci bi la ñu dégg ñu ne dem nañ ci saaku yi maanaam génn nañ stade bi kon euh, defe naa ni euh, waxtaan bi neex na lool euh, waaye waaye nit ñi dañu bëri ci biti macha allah di xaar sëriñ bi Euh, kon ba léegi nañu suivre su la TMS TV ak euh, le xalif général euh, di Alaaji Thierno Moule Sow vraiment am nañ mbégte am contenté kon sëriñ bi defe naa ni bi bu ñu jógee nag ci ci sa ndigal ci ci ci vite fait bi dañuy jublu ci ci ci ci ci soxna yële waaw dañuy jublu ci ci soxla yële kon ñu ngi leen di ziar defe naa ni ñoom ñoo ànd ah waaw man man. Ah, d' accord kon waaw kon ba léegi dañuy avancer rek Abdou Aziz Diagne. puus euh, ci kaw. Euh, ci kanam waaw dañuy njëkk ci yéen ba pare dooroo ñëw ci ci cuuraay bi kon ñu ngi am mbégte di leen ziar bu baax a baax di ànd ak yéen sur la TMS bi kon soxla Ngone bi ñuy jógee fii nag euh, dañuy avancé jox leen suñu micro ñu ngi leen di ziar di am contenté di leen dalal ci TMS bi xanaa di njëkk ci yow di la wax nga présenté wu rek tur beeg sant bi ak fan ngeen jóge waaw man maa ngi tudd euh, Ndeye Lalla Seck. Mhm. maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp seen tur ak seen sant. Mhm. jóge kër Ndiaye Lo. Euh, yoonu sangal kàmb. ana waa Ndiaye foofu. Mhm. Oh, waaw euh, man nag sama doom ji ñëw na fi je pense trois fois chaque fois mu may wax Thierno Moulé Thierno Moulé yaay kan dem yaay kan dem ma ne ko ca dem demuma ndax su ma demee damay dem daanu foofu te aw ma lu ma may fay <laughs> aw ma ba tey jii mu xëcc ma ba ma ñëw. waaw léegi nag euh, sama sët bi 11 ans la am boobu bu muy def euh, kii ak examen ma ne ko waa yow soo demee ba jaaxle tuddat ñetti yoon seen kii ceen mu mm. lay sax mu ñëw mën ma maam yow mathématique bi dafa metti woon mais dama tudd ñetti yoon téere mais dafa mel na dafa am lu ma ni fiw mm. ma ne ko loolu baax na téere mu lay sax voilà moom itam keroog ma toog nii man ko waaw man dama on dama am fii benn enjeu man ma yaay du daj yenn mu réseau nga naan ndox ma mu man mu jox ma ndox tuddati sama affaire bi dem ba bés naka tey ji sentir ma ko man ka ah lii de moom xewal la xewal la sama mag bii tamit nekk Canada def wat naa waxtaan naa Thierno moom tamit bëgg na bëgg na mais affaire yee dëgër rek waaw affaire yee dëgër léegi nag man mosuma fi ñëw. alors bi nga ñëwee fii tey nan nga gisee. kër gi ah, damay seetaan affaire yi de. Hmm. si YouTube. ah mais bi noo ko dundee tey en direct nga ñëw. waa kër gi bëri macha nit ah, bëri nit ak organisation bi. waaw ça hmm. est c' est très bien. Hmm. bien organisé et tout. bien organisé et gis naa ñii di daanu aussi. man na xam nga man damaa bëgg a damaa am yërmande. ba kooku bu mu demee ba daanu ceerno bu mu ñëwee sax dama ko laadoon ma bur laal. xam nga tu as <laughs> donc waaw très souvent kii du mën na law. lan ñu mën a wax. Ah, gis naa lu bare. gis naa lu bare looloo tax ñu waxtaan ko suñu mag bu nekk fee gën a de mais affaire yee kii rek ya dëgg rek. Mhm. léegi nag ñu ñëw jënd kii ndaxte dañoo am euh, daf ñuy yónnee ay marchandise euh, ay yére. Mhm. mais depuis corona dara dox. Mhm. dara dox. mu ne nu ah dégg naa Thierno di wax affaire brologue. t-shirt waaw brologue bi ak t-shirt. porte-clés yi jël leen ngeen dem jëndi ngeen tafal ma ko si magasin bi su ko defee ah dara su baaxee su ko defee suñu amee dara man dinaa mun a jóge fee ñëw. Thierno mu lay dimbale ma ndax dama am foofu sama doom aussi boo xam ne moom tim ça ne va pas donc loolu yëpp bëgg na ko mais il faut que ñu am euh, dara ñu commencé si. t-shirt bi ak broloog bi ak photo euh, mm-hmm. waaw te man itam lu ma gën a indi sama euh, sama sama doom mm-hmm. bu góor jabaram mm-hmm. rakkam a ah, dafa feebar mu ngi Casamance mënu sax ñëw moo jàpp kooku dañ dem ba jàpp baat bi mënul lekk mënul def dara ma ni man tim naa ko wutal euh, photo xëy na su ma ko wutalee photo dina mm-hmm. affaire bi na ko na ko dimbale mm-hmm. en attendant yaram bi féex mm-hmm. ma woo mu ñëw fii ñëw sees Thierno mu lekk macha allah kontaan nañu bu maa ngi tudd Aminata Marie Seck maa ngi nuyu ñëpp. maa ngi dëkk jógee kii Kër Ndiaye waaw foofu laa jóge ñëw bu fii. ñu ngi fa ñëpp a ngi si jàmm. Ah, léegi ñu bàyyi la rek euh, waaw. <laughs> mu de Thierno de vidéo yi balaa maa ñëw fii sax. vidéo yi rek laa seetaan commencé di gis di gis Thierno si ay gént. Mm-hmm. waaw gént yu bëri ba léegi nii sax temps yëpp moom lay gént. dama koy gis si ay gént. kon dama ko bàyyi chaque jour ba deux ah, am naa benn du ma rëcc man saa yu bu amee beneen benn bu bees dama koy may yàkkamti mu am waaw. te temps yi tey kii sama doom bu bi sama doom bu góor bi mu ko maa ko doon woo moom ceex na mais mënuma koo jot parce que dafa topp naan ma damaa bëgg a waxante ceex na. dama bëgg a waxanteeg kenn ba xanaa doo ma fa yóbbu nag doo ma fa yóbbu benn parce que man xaaral woo ko pour ma moom mais yàlla def mënu mënu moom doomam ñëwoon na fi. waaw ma gisee dafa daanu. suuf di jooy rek. sa doom ñëwoon nga ñu expliquer euh, bi mu ñëwee. moom moo xam moom doon nelaw guddi. day tiit si guddi si. parce que day gént ay affaire yu lay gént si nelaw guddi. léegi fii bu mu ñëwee fii. dafay dafa nelaw bu baax mu ñëwee fii dafa nelaw bu baax dëgg yaa boo moom gis naa seetlu naa loolu. <laughs> te defaluma ko dara. waaw gis nga yooyu yëpp maa ngi koy constaté moom macha allah. mooy li Aliou doon wax sànq rek. Hmm. Aliou li mu doon wax femme bi loolu la confirmé. am na benn waay bu jugee France loolu mu doon wax rek. fay loolu mois en 1 an et quelque mënul nelaw. Mhm. ba mu ñëwee buñ kër Thierno Moule foofu lay la basang day nelaw normal. dëgg la bëri na la yi war naa xoolal day nelaw normal nee na ba mu nekkee France mënul nelaw. dëgg la mu dagg biyee ñëw. xoolal mhm. basang lay lal wetu bunt bunt bi. dëgg la tëdd nee na foofu lay mën a neraw mhm. nelaw. moo tax man li may wax sénégalais yi. monde entier ku mën. na nga bi biyee ñëw seet si Thierno Moule. daa ngi ñëw jooni jooni vite fait bi am na njëriñ de. Mhm. am na njëriñ trop balaa nga koy xam nga laal ko xam nga adduna bi jigéen ñëpp. lu ci ëpp waaye nag sëriñ bi gars yi ñu ngi koy xaar de. Ah? yëpp ñu ngi koy xaar ñëpp koy xaar. ñëpp koy xëy xaar xam nga nag moom déplacement moom yomb. xam naa déplacement am yombul xam naa loolu xam nga xam lu koy xaar gars yi duñ ko mm. ko bàyyi mu dem moo tax ma ne lu may wax sénégalais yi nañ gaawantu ñëw nañ gaawantu ñëpp ñoo gis Thierno balaa moo dem loolu laa am lu may wax ñii ñii te xam ne kii boo ko gisee rek sa aju faju mm. ñett ñett photo Thierno Moule day faj même boo boo tëddee ba guddi nga feebar nga léem wala ñu tëj la kaso nga tudd ñett Thierno Moule wala nga am ay jafe-jafe looy dugg nga ne barki Thierno Moule barki Thierno Moule bu muy ñetti yoon sa aajo day faju balaa ngoon man loolu xam naa si lu leer te man tëdd naa hôpital xam naa li si nekk. dëgg la xam la jour bu ma Thierno wooyee ah lu génn sama yaram. Thierno ne woon nga sa yaram amul am ngay jinne yu bari wax. waaw waaw waxoon naa xam nga ba am ma garab. waaw unité 19 ndeysaan. keroog ba ma wooyee moom macha allah Thierno. Mhm. sama yaram bi moom ba léegi jàmmatuma dara. ndeysaan jàmm te yokkal ñaan yi. incha allah jàmm te jooni jooni bi. waaw bëgg naa ci yóbbaale la. incha allah incha allah. jërëjëf kon euh, ba a ngi suivre sur la TMS TV gis ngeen ñi ngi nekk nag presque ci 2 heures du matin presque léegi mu jot. alors defe naa ni heure bi nag mbër yëpp dem nañ tëddi waaye roi bi moom mu ngi nii toog macha allah fas yéene jëm ak yi ba ba fajar comme ni mu amee habitude du ko def kon ba léegi ñu continuer suñu waxtaan rek. waaw maa ngi temps yi rek maa ngi gënt kii sëñ Saliou ak Thierno Thierno toog nii si chaise am. macha allah waaw Thierno toog nii si chaise am. sëñ Saliou mais man dama yëg sëñ Saliou dafa tëdd di nelaw mais après waaw ñoom ñëpp doon ma ñaanal nag ci biir bi. waaw ah. loolu moom waaw waaw loolu damay confirmer ñu bëri dañu may gént ak euh, kilifa yi ñu bëri dañu may gént ak kilifa yi loolu moom yow kese am na ñu bëri ñu may woo gént nañ la ak kilifa yi di di expliqué macha allah waaw loolu nag sant yàlla rek macha allah. alors bëggoon naa mhm. euh, mhm. waaw man man mi man mi jëndoon naa fi benn kii. benn t-shirt bu ma kii mais moom laay fanaanoo moom laay fanaanoo gént yu ma doon gént ah géntaatuma ko de macha allah am nga leer na xam nga li yëpp bu nekkoon politique ba tey tas na t yi tey la gën a jaar ñii ñi tey lañ ko gën a jënd bras euh, porte-clés yi tey lañ ko gën a jënd porte-clés 10 000 lay jar porte-clés muy jaay ci marché bi ay 300 200 fii 10 000 francs lay jar porte te ñii lañ koy jënd portant clé dix mille francs loolu dañ koy jënd. nga joxoon ma defe naa ne am na ay t-shirt yi tamit macha allah du taxaw. waaw. mi ngi que t-shirt parce que lu yàgg rek dëgg la lu yàgg dëgg la li ñuy wax ci saa su ne xam nga ne lii gisoo benn sëriñ. bu ko fi defar t-shirt tam di ko jaay. wala say photo ñu jënd ko di ko jaay. wala tey porte clé di jar ñaari junni ñi di ko jënd. li gën a yem. waaw baa ngi dund. di jaay t-shirtam sëriñ baa ngi dund di jaay photom ñu di ko jël boo xoolee ñu bëri ñi ñu doon ñi ñuy jaay seen photo nekkatuñ fi. Mm-hmm. làqu man nag sama sama sama ngiru dund maa ngi dund di jaay samay photo mm-hmm. ñi ñu ngi koy jënd di jaay samay tiset ñi ngi koy jënd nit ñi di ko jënd kon xam xalaat leen loolu. loolu loolu yombul de. Mm, bëri na fii kilifa yi bëri ñi ñuy jaay seen photo ak yooyu nekkuñu fi. Mm-hmm. macha allah. waaye nag lii dafa amul fenn mara marabu traditionnel buy jaayee produit am lu mel la photo t-shirt ak cuuraay di jar cent vingt cinq mille ñaar fukki junni ak juróom ci Sénégal 250 000 ci Europe nit ñi di ko jënd gis nañ léegi GP bi macha allah 500 000 la jar di di jëm Europe allah chaque jour GP bi dafiy ñëw di ko jël kon nag lu ne fàng kenn ko jël. te am toog ak a dugg fay ñi di faju ji ah. yor ay 1 million yu tegal ñëw di fay macha allah kon nag mi ngi noonu gis nga sëriñ boo xam ne fotoom day faj li nga xam ne ne moom mooy t-shirtam day faj baatin la te loolu yëpp da ko baaxee askan bi pour bëgg leen a dimbali bëgg leen a jàppale ñi nga xam ne dañoo am ay jafe-jafe rab comme kii nu mu ko waxee da ngay gis ku yor place am di jaay rab yi jinne yi ruube la ba da xëy soo ba ngoon jot doo jaay dara gis nga nii ñooñ moo tax ñu déplacé wu parce que ñi nga xam ne amuñu moyen pour faju dañuy ñëw ndax foto yi ndax t-shirt yi ndax boo ko laalee jinne bi nekk ci yow xëy na dooleem dina wàññeeku ba di nga mën a am yow loo am pour mu ñëw faju si kon nag jaaraama Thierno Moule saw ku mel nii ak kenn amul fayam ndax li ma kookoon ci bu la nga toog doo fi nekk di faj di sonn di dimbali doomu aadama ndax ko yor ay jinne ñàkkoo dara da ngay toog loo bëgg ñu indi la macha allah gis nañ léegi taalibe yi jóge ba États-Unis ñoo ñëw indi jasneer bi te ci xaalis bu bari ñëw ziyaare ko kon nag lu ne fànk kenn du ko jeex li ma wax ci moodu moodu yi faatu faatu kenn mun leen naq fu ñu gisul lu dool seen xel seen du yëkkat seen alal di ko fa def kon nag jaaraama Thierno Moule gis nañu tamit vite bi li muy def di lakk jinne di ko humilier macha allah di di toroxal jinne yi te macha allah produit boobu moom kese moo ko am ngay gis jinne di ñëw di jaayu di vanté wu di wane dafa puissant waaye buñ la laalalee vite fait bi yaakaar naa ne fa ngay jaare dem baar tootoo xàmmee janjak njoor volcan bi moom kenn waxatu ko kon nag jaaraama teel mu la saw kon nag ñeneen ñi yeneen faux marabout dañuy xaar ba beneen yoon ba jamono neex dañuy xaar. jërëjëf euh, soxna ni ko waxee jaaraama euh, alaaji jeex na mu ne sow. ñu ngi leen ni ziar bu baax a baax di am mbégte toujours di ànd ak yéen sur la TMS bi di télé bi nga xam ni moo feeñal lépp lu nëbbu ak le xalif général di Alaaji Thierno Moule Sow kon ba léegi dañu continuer rek waxtaan bi alors ñu joxe jóge ci ñaari soxna yi nag euh, le temps ñu terminé ak ñoom euh, dañu ñëw ci soxna si ñu ngi lay ziar di la euh, ziar bu baax a baax di la dalal ci TMS TV di la bàyyi nga présenté wu bi ak sant bi. bisimilah rahmaani rahiim jërëjëf Thierno jërëjëf Thierno jërëjëf Thierno maa ngi tudd madame baabu ñu may wax Tooba Sembène Kër masaar Kër masaar laa jóge nga fa Moustapha Mbengue mbaa ngi ci ngi sant mi ngi ñëpp jàmm alors euh, ñu bëggoon xam lan mooy sa tànk tey ci kër xalifa général di Alaaji Thierno Moule Sow man nag samay tànk njëkkoon naa fi ñëw ndax sëñ bi bu ma ko xamee sëñ bi bu ma ko xamee yàlla sama doom a sama doom moo ko daan seetaan mu ko seetaane mënti ma ñëw di ko seetaan bi ma ko ñëwee seetaan ka di commencé di am lu may yëg sama yaram di gént ay nag fekk sëñ am na lu muy wax lu am solo nag ngeen bàyyi ci xel jël nag ma gént nag hmm. fekk dama tëdd hmm. ñaan ci ñetti cenn mu la sow ma sëñ Cenno ma gént fii aussi na fi sëñ ñuul kuk waaw ndax ba ma jëkkee gis sëñ bi nag nagu ñuul kuk sëñ baa ngi taxaw sol lu weex ci gént bi bu ma ñëwee fii yàlla daf ma won sëñ bi sol lu weex ma jàkkaarloo moom. bi nga defee loolu ci gént bi bi nga ñëwee fii la nga gis ci gént bi bi nga ñëwee loolu nga gis ci sëriñ bi. laa sëñ bi man ñaan euh, sëñ bi euh, ma gis nag wi nag nagu ñuul wi di daw deret yi di xelli ma ma ne alhamdulilah ndax sama sëñ bi wallu na ma ndax li ma gis wallu na nii euh, lu kéemaant la lu kéemaan la ma toogaat gis ay biddéew ci kaw ñaari biddéew ay biddéew ñu mel ni ñuy kiiwante daal ñu jàkkaarloo ma tudd yàlla ma tudd sëñ bi ma na de yàlla dana ma defal ndax xéewal ndax man sama jëkkër dafa laaxu bàyyi ma njaboot yu sew yu sew kii sama doom ji ma àndal tey ji sax mooy sama taw mooy sama taaw ndax su ma génnee dama daan jaay jaay macha allah dama daan jaay lu bari waaye ba ma ñëwee avant may ñëw fii ma taxu nii mille francs sax mënuma koo jaay te bëgguma doom aadama ndax sama jëkkër dañoo yar yar goo xamante ne duñ ñaani samay doom duñ génn man rek lañ xam man rek lañ xam ñu toog di ñaan heure bu ma jaaxalee damay ñaan si sëñ bi mu di ma won ay kii man di ma ko won damay sant yàlla bu baax te damay toog dama ne woon sax damay toog sama portable duma xam nit a may envoyé xaalis te duma xam kan la wallaahi nit a may envoyé xaalis duma la ndax nit envoyé la yenn somme yi doo xam kan la ndax boo jékki-jékki woote xam nga jamono ji dafa naqari ni tey jóge fële na la waa dama juum moo tax ma ñëw ma ñëw waa ma ñëw si sëñ bi looloo yokk tax sax ma ñëw si sëñ bi walla te sëñ bi dama koy sant di ko gërëm maa ngi gis si moom njariñ maa ngi gis si moom njariñ te sama doom ji ma bàyyi fi dañ ko waroon a yóbbu boobu ba léegi ñett lañu woon moom ba léegi yóbbuwuñu ko. yóbbuwuñu ko Europe lañ ko waroon a yóbbu. ku góor ki mooy sama taaw bi ba léegi yóbbuwuñu ko Europe. moo tax ma indi ko fi bu sëñ bi gën koo sàkku ñu sàkku ñaan dama jëndaale si cuuraay bi ndax jëndoon naa ci photo bi photo yi jëndoon naa ci eh, ak ak t-shirt depuis depuis kii tabaski bi léegi alseeni na ma prix bi ñëwagul ma ne ko xam naa ne waa yàkkamtiwuma ko bàyyi bu ñëwee dinaa ko indi ndax fan nii yëpp dama feebar sama doom yi dañ ne ma yaay foo jëm tey ma ne ko sa ceer na laa jëm boo ma duggee yëgatuma dara sama yaram ne wallaahi balka alxuraanu karim sama doom yi sama doom yi ñett laa bàyyi kër gi kenn kaa ngi fi fan yëpp dama tëdd feebar dama tëdd feebar ma ne ko damay dem si Thierno mu ne ma tànk ma ne ko tànk dewuma si Thierno duma mën a toog di leen togga il faut ma dem si Thierno mu ñaanal ma moo tax ma ñëw fi dama dugg rek sama yaram yëpp sedd guy yëpp sedd guy maa ngi sant baax a baax maa ngi sant Thierno baax a baax di sàkku ñaan nag ñaan moom fi nu may sàkku ñaan baax a baax loolu laa amoon ci lu baax jërëjëf mu nekk macha allah kàddu yoo xam ni Abdou Aziz am na solo euh, kàddu yoo xam ni soxna Ngoné am na solo alors ci kàddu yi nag li ñu ci mën a jàngat mooy euh, ay kéemtaan yi nga xam ni euh, ci sëriñ Thierno Moule Sow li mu wax yëpp ay kéemtaan la gént yeeg li mu ñëw gis li mu jot a gént ak nga gis ni bi muy ñëw fii dafa tawat bi mu ñëwee fii ba dugg ci biir kër gi macha allah yëgatul dara ak yeneen ak yeneen kon nga xam ni euh, yàlla suñu borom rek moo ma mën a may Abdou Aziz Diagne kon defe naa ni. barka démb sax li ma taxoon a feebar dama di jaay beñe ci gént gi benn meer dugg ci benn kàmb ma sove ko yëkkati ko sauvé ko fekk kàmba gi des ki ma ma sauvé ko ma tudd ñetti cern mu la saw sauvé ko bi ma ko sauvé. xale benn benn mère bu màggat la léegi mu ngi teg noonu benn xale ma jël benn xale bi di ko nàmpal sama ween bi sama ween bi di génn soow ma ne ah lii de ma ko ma nàmpal ko bi ma bi tëdd toog fële di ma xool léegi sama wujju fecco gën a ma nàmpal xale bi ne ko waaw dama koy nàmpal léegi bi ko nàmpalee sama ween bi di génn soow léegi après c'est la sa ëllëg sa laa tëddoon feebar ma ne il faut mu ñëw kat Thierno bëggoon waaw loolu de defe naa ni kër Alaaji Thierno Moule Sow rek nga mën a gis genre kéemtaan yi macha allah lépp nag comme ni ko sëriñ bi di waxee rek lépp rek yàlla suñu borom la. yàlla suñu borom moo ko ko may. moom it loo ko sëriñ bi ndamoowu ko bàkkoowu ko lépp rek daf koy delloo yàlla suñu borom. kon dama ne euh, alaaji Thierno Moule Sow soxna Ngone euh, géej la alaaji Thierno Moule Sow defe naa ni ñu mu bokkoonoon làmb làmb bi yëpp ñëpp génn nañ stade bi heure bi ban heure a jot fi mu ne nii 2 heures bi matin jot na defe naa ni defe naa ni euh, mbër yëpp dem nañ tëddi nelaw bay xaran instant bi roi bi moo toog nii di jàppale jaamu yàlla askan bi kon kii defe naa ni yàlla suñu borom rek moo am fayam kon sëriñ bi defe naa ni Euh, ñu ngi lay ziaraat di la jox sa wàccuwaay euh, ginnaaw nag euh, bi ñu waxtaanee ak jàmm yàlla yi fi nekk te tax leen jóg ñu daal di lay delloowaat kàddu gi rek. waaw jërëjëf Moustapha ñoo ngi sant suñu borom bu baax di julli ci yonante bi salaam defe naa ne ñoom ñett ñi nekkuñu xamantewuñu kenn ku ne def na seede sa diggante ak yàlla li nga gis defe naa ne di ñoom kese gis nga Aliou lu mu wax fii. chaque jour ñi ñaa ngi def témoignage ci man loolu moom nit ñi xam nañ léegi nag li ñuy wax fukki nit bu ñuy gas fukki nit di suul kon xam nga ne pax boobu noonu macha allah du du musa kiiw waaw waaw kon nag moo ngi noonu sant suñu borom mu Moule Sow lii yàlla moo ma ko jox moom a jox xam-xam ak baatin bi sama papa borom xam-xam la samay maam borom xam-xam lañu mais dama leen raw ci xam-xam. ñaan naa yàlla sama doom prince ñëw romb ma waaw nit ku ne loolu lay ñaan suñu borom ñaan naa man tamit sama njaboot ñëw romb ma ci xam-xam loolu sama ferte la sama mbégte la ma toog gis suma doom def li baayam daawul def sax damay da bég ci loolu kon kenn ku ne day ñaan sa doom raw la macha allahu lii nag moom suñu boroom la moom ma ko jox sama tur moo ngi faj defe naa ne ñi ñaa ngi def témoignage ñi xaw ma leen bokkuñu sax kii xamantewuñ kenn ku ne sa diggante ak yàlla ngay wax ñu ñëw jënd ay t-shirt jënd ay photo jënd ay vite fait di gis kon nag lu ne fànga kenn du ko jeex Thierno Moule Sow géej la macha allah dégg ngeen soxna soo jóge fii léegi ñi santu loo depuis euh, si kaab mbaaw am na 9 ans fajoon naa ko mu def témoignage ñoo ma indil 10 10 mètres jasneer bi indil ma plus de 100 000 francs macha allah ñoom seen dem États-Unis sama loxo la jaar maa leen ñaanal ñu dem. ak ñeneen ak ñeneen ak yeneen ak yeneen defe naa ne sama mbir làquwul dugal YouTube lépp ngay gis lu ne fàng kenn du ko jeex ku ko jéem ak ku ko mën bokkul defe naa ne bu nekkoon ne dama doon jéem wala di forcer heure bi daanu naa bu yàgg toqi naa waaye tey laa ko gën a mën tey laa gën a avancé xam-xam bi tey la gën a yokku expérience bi tey la gën a yokku ni ko Aliou waxee unité di unité 19 dama daan faj ay nit te duñ ma fay dara dañ ma daan gis ak wër ba fajar nekk foofu parce que doo mbir maa ngi may doog feeñu jamono yooyu bees bees mbir maa ngi may doog a feeñu xam nga rek macha allah boo amee oto bu bees wala am kër gu bees euh, nu ngi koy nu muy mel ci yow xam-xam bi jinne yi ñoo ngi may doog a feeñu maa ngi doog di gis ay jinne duma lekk du ma naan 24 heures sur 24 heures maa ngi ci mbedd bi du ma xiif du mar nooy amee yaram da ngay jeex tàkk da ngay sew ruj su ko defee nag nit ñi naan a ah, kii moom dafa jeex dafa jeex nangam nangam boo dul lekk boo dul naan da ngay jeex léegi fu mu nekk nii chaque chaque semaine yaat maa ngi dem jënd ñaari xar ray ko ñu mbuuse ko dugal ko ci frigo bi congélateur bi jënd ay ginaar teg ay jën yu baax teg madame Sow moo ngi rëgal di def ba mu baax jëndal utal naa ko ñaari jànk waaye danaan sama sama borom kër maa koy toggal laa reen toggal ma ay togg yu neex ñu lekk-lekk neex macha allah barki dem boo njaay rek Euh, dañoo dem jënd ñetti xar benn xar bi pour kër gi fii la pour Cambérène fii yeneen ñaari xar yi fee ñu jënd yeel mu togg yeel yi baax ne yeel yi xaaral euh, ma yekkal ci alseeni ak Diop ma wax alseeni mu woo Diop mu ñu ñëw macha allah lekk ci yeel bu baax naan ci supp ak ñeex mi parce que dañoo tooy nag dañuy waaw waaw supp bu neex nag supp yel mu dóor ko ba mu neex macha allah moom nag dafa baax dafa yéwén ndeysaan lépp lu mu togg foofu rek day bëgg a yekkal ñi ñoom alseeni parfois sax ko naan déedéet ñii macha allah ñii ñii am nañ ration kër ga dañ macha allah jëlal naa leen ay jànk macha allah waaw waaw waaw kon kon changement am na ak yokkute xam-xam bi am na xam bi am na euh, xel mi gën na yokku tamit ndax léegi ñii ñi ay millions la ñuy fay waaw waaw million waaw kon nag macha allah defe naa ne Ahmed tey jommi na euh, moo ngi toog macha allah waaw waaw sonn na waaw waaw mais xam nga waaw waaw waaw macha allah kon nag gis nga aduna aduna euh, nit ki même boo jotee ak moom maandul rek nga bañ a waxal ko lu ñaaw bañ ko xas bañ ko saaga rawatina ku mel ni Thierno Moule mu nekk gor man boo may séntu ci gaalu xaj wallaay doom fa fek man noonu laa mel mi ngi ko mi pulla ko mi dimo man du ma ragal du ma tàppet mais xam nga lu may rey gàcce man gàcce moo may rey man gàcce mën na ma rey man boole ma séntoo ci gaalu xaj doole ma fekk dama leen di dévier man noonu laa mel waaw man gàcce moo may rey man man man man gàcce daf may rey waaw waaw macha allah defe naa ne fii huit cent mille lay fay fii ba tey maa ngi fay huit cent mille alhamdulilah rabbil alamin dossier yi génn na acte de kii bi euh, naka la euh, autorisation de caution bi génn na incha allah clinique bi léegi mu taxaw waaw mbir mi génn na waaw sooba yàlla autorisation de bi ma doon fii te fii laa jënd euh, jàkkaarloo géej gi fii laa jënd ñaari terrain jàkkaarloo géej gi waaw kay kayit yi génn na léegi man la des plan bi pare na incha allah suñu clinique bi léegi mu taxaw waaw kon nag ñoo ngi sant yàlla bu baax a baax waaw di gërëm suñu borom macha allah li ma yàlla jox xam-xam bi ma yàlla jox su ma neexoon du ma liggéey madame Sow loolu la ma mu ne ma yow yow corona euh, kii bi coronavirus bi mooy ba mu amee xam nga un liggéey mu gis xaalis bi di ñëw mu ne ma yow kay bu la neexee kay yow doo dem Cambérène yow liggéeyoo fu mu nekk ni xaalis baa ngi ñëw bu baax a baax te yow liggéeyoo barke alxuraanu karim ma ne ko man xanaa xamoo bu ma liggéeyu laay ëpp xaalis ma ne ko man bu ma liggéeywul laay ëpp sax xaalis xaalis bi fu ne lay jóge mu ne ma kon yow da ngay sonna sa bopp di dem Cambérène ma ne ko non don la nag instant bi ni xale la maanaam du ma mag damay liggéey bu baax ñafe su ma yàlla dimbalee nag ma dem ba jël yenn âge yi mun naa retraité bàyyi sama njaboot ñu doxal wala sama taalibe yi waaye pour l'instant xale la damay damay doxal dam parfois danaa ma toogal noppale ko ma ne ko non ma dem ma nekk si waar bi kon macha allah ñoo ngi sant suñu borom bu baax di julli ci yoon lépp nag ci yoonu siraatal mustaxin lañu ko teg ci yàlla ak yonente bi sama liggéey bi defe naa ne loolu la kon nag macha allah ma jox ñi nga xamante ne ñoo yor foto yi am na ñu toog ci biti nag ñi nga xamante ne dañoo war a dugg fi ziar nag parce que waaw taxawal na taxawal ne tourné ko tourné ko tourné ko waaw. 5000 lay lay jar. yii aussi macha benn bu ne 1000 lay jar. porte clé bi 10 000 lay jar lii 1000 francs lay jar am macha allah waaw. yàlla na ci yàlla def barke. ñu bëggoon la ci. macha allah yëpp damay jàppale jaam ñi rek macha allah moo tax ñu jaay cuuraay bi lii cent vingt cinq mille la cuuraay ñi nekk Sénégal fii ñi nekk bitim réew deux cent cinquante mille bu tojul fenn cuuraay bi nag daf koo jar de <laughs> xam nañ ko cuuraay bi dafa baax boobu deux cent cinquante mille la bu dee pour extérieur la ah bu buggee mun nañ ko yónneel boo leen buggee ñu jox leen ngeen yónnee ko mais ki nga xamante ne dafa nekk bitim réew bëgg jënd cuuraay ñu jënd ko cuuraay bu cent vingt cinq mille du ko jariñ dara ah ndax mbir yi baatin la de cuuraay bi du cuuraay simple samay affaire du mbirum simple man duma wax mbir yi lan ak lan la yéenay toog di ma wax waaye man duma ma détail ah, lañ nekk ban sëriñ moo fi jaay cuuraay nga delloo amul 10 000 francs cuuraay baa ngi ni 125 000 amul fenn macha allah ñu ñaar ci junni ci ginnaaw bi noogaase jël yàlla moo ci def barke samay affaire boo ci amee tuuti rek c'est fini lii tamit t-shirt la. waaw vingt mille a jox mu ne benn t-shirt. ngeen t-shirt yi aussi macha allah am na ay am na am na ay xale. ngeen ko nii boo ko solee daf lay aar baatin dama ci def ñaan amul ay xaatim amul bind alxuraan amul dara waaye <laughs> li ci ne baatin la daf lay dimbali. te ñi ñaa ngi koy jënd si fan yee euh, ki nekkoon France di dawal di nelaw ba def accident ñaari yoon nar faatu ba mu jëndee t-shirt yi nelawatul defe naa ne ñi ñaa koy gis gis nga nit ñi dañuy daw di jënd si affaire yi sax yaat ma mu ne fu mu nekk ni war nañ war naa commandé waat sax ay ay ay t-shirt ak yooyu macha allah parce que instant bi euh, dafay day jar bu baax a baax parce que dañ cee gis njëriñ sénégalais nag dofuñu ban sëriñ moo fi jaay t-shirt waaw même euh, prix rek quinze mille vingt cinq mille yàggee sax day yéeg <laughs> macha allah dana ci boo ko laalee day sedd buy boo ko solee macha allah photo yi tamit boo ko defee sa néeg su fa jinne ñëwoon yornu gis foto Thierno mu ne day wàññeeku jënd naa dem kon xam nga ne kii kii am na lu yàlla def ci moom nañu nangu ñu bañ a soxor aussi macha allah jërëjëf. yàlla allah.